jajeufal suma waji Malal Jan junior di ko nuyu bu baakha a baax gërëm it Abdoulaye job ak ak Maysa suma nuyo ñoo ñu ñepp ba nopi nak nuyu nga wa nga bu wa nga mo meunta ñak mom yow nak grand bu baax nga uh-huh. grand bu bien nga yam fiñ la yam lo japp sa ñambur yal na yàlla sàmm la yal na la yàlla fay gis naa ni ngi may ni ngi may suturaale parce que yow yaa yow yaa mel noonu ah, yow waaw yow eh, lu koo ñaan mu may la jox ma cër bi waaw yow boo ne nit bàyyi lii mu bàyyi boo ko ne demal def leen mu def ko parce que yow yaa bindoo noonu jërëjëf maa ngi ziar Diagne <laughs> maa ngi bu baax a baax xëy ku ne jox sa pamaat di diw sa morom yooyu jàpp moo man ku ne ku ne jël sa ku ne sa pama yow sa pama di diw sa morom <laughs> man yooyu jàpp moo man daal njaay eh, kii bu dee da ngay nuyoo nga complot seen complot fa la ñëw di booy nuyoo daal nga nuyoo daal àdduna ngi lay déglu di nuyu ziar di nuyu waa Sénégal di nuyu waa boor bële di nuyu ñëpp daal tout le monde bonjour c'est tout ñëw naa jaay nañ jëm ci partenaires yi <laughs> ñu ngi ñu ngi fi partenaires yi comme fii la may sa tàmbale muy sa ginnaaw waa Optique Vision Plus Sénégal mm. damay wax ne fii la réew mi tàmbale fa la yem ndax euh, bu fekkente ne dañoo nekkoon ci ay jamono joo xam ne ku ñu bindal ordonnance lunettes sa tukki ndax da ngay ragal mu seer bu seeree tamit da ngay ragal foo koy commandé boo ko bitim lay Optique Vision Plus Sénégal ñew ci rew mi samp ay boutique fepp fait ci rew mi di lunettes jox lunette yi ngeen bëgg garantie original euh, fashion tech ci ñukoy jaay ci njëg bu yomb Optique Vision Plus Sénégal rek moulin len ko mënal fi ci Sénégal ci walu lunettes lunettes dem ci Sénégal Optique Vision Plus Sénégal mangafa nga fa am nañu boutique la santé de vos yeux notre préoccupation première ba peut-être ci lunettes partout et pour tous di ko doxee ça su nekk Vision Plus Sénégal ak yu bax yi ñu Sénégal dont kumpa ci réew mi euh, li may conseiller képp ku soxla walu lunette fi ci Sénégal euh, demal ci boutique Optivision Plus Sénégal wala fo man di nek également man nga leen wo ci 33 821 54 57 wala 77 479 63 38 amna arrivage été bo xam ne nañu ko ci kanam touti fi ki fan dinañ ci communiquer ngir ñi nga xamantene ne ji kon dañu bëgg euh, ay lunettes d'été mais également bëgg gën a jëflante Optivision Plus Sénégal ñu xam yan bagage ñoo fa am ñu gërëm benen partenaire moy gamme bii Universel Pouce moi it gambo am solo gambo efficace gambo xamné ay preuve am wane na ko fu nekk ci aduna bi ñu ko ci Sénégal Universal Pousse liko ko tax a jóg mooy da nga bëgg sa karaw di sëq sëq ba pare tegu ci yoon utiliser gamu Universal Pousse gam la amna huile de barbe amna yenen yu nek ci gaam xamné da fay dundal sa euh, euh, karaw di ko di la may muy pousser ni mu waré di topoto également sa karaw di dundal également sa cuir chevelure loolu moy gamme Universal Pousse disponible partout ci Sénégal na ci boutique yi jay produits cosmétiques Universal Pousse di gambo am solo bi ci bëgg mën ngaa woote ci 70 336 05 53 70 336 05 53 ñu leen di jaajëfal bu baax a baax ñoom waa Universal Pousse naka noonu it Optique Vision Plus Sénégal ginnaaw bu ñu sante waa Sénégal euh, Ababacar. am na solo am na solo à mhm. fi ñu yemoon nag euh, ci xalaas ki waaw démb mooy. ah moom mooy euh, cas bi ñu fi indi woon. Mhm di benn xale boo xamante ne ji ci mu ko expliquer passe que mooy nee na dafa nekk fii Sénégal. Mm-hmm. ñu wax ko pour mu ànd ak nijaayam di liggéey. Mm-hmm. nijaay ji am sànc bitim réew. réew ma mu dem nag. Euh, ci Afrique la loolu ci Afrique la. Mm-hmm. mais réew mi mu dem nee na jëflante maanaam séq ak jigéen dafa yomb. xam nga fii Sénégal sax. moom mën réew la. <laughs> Eh, ah euh, réew Afrique yi nga xam ne séq ak jigéen dafay yomb moom soxlu sa ngay dem fu. sori moom soxlu sax nga dem fu sori.

foofu même ab mbedd la moo xam ne duñ ko duñ koo xàll ba mu rafet def ko ay vitre Hollande tamit loolu am na jëndee di comme kuy wut service am na na Hollande rasul am boo demee ne gis nga ay coupe d'Afrique yi boo hmm. xool da ngay jàng nga hmm. mën a découvrir yu bëri sax kay yu bëree bëree bëri bëri noonu Côte d'Ivoire gi amoon na baat benn baat dañ koo tëj ndax dañu fa fa jàm nit xotu butéel mu dee mu ngi tuddoon Dream Dream Club. waaw ah, dégg naa ko. Hmm? yii boobu moom foofu foofu mu la mbon gi yem moom. Hmm. ndokk ba mu tëjee. boo demee beneen am na barab bu ñu ko tuddee jonke. xam nga beneen moom. non moom non ku nekk moom. Oh. mais Sénégal gi Dakar gi amoon na fi ponti xanaa xanaa léegi la ah, la changé rek Afrika Star amoon na fi tamit. waaw mais Dream Bar tudd na. non moom am na bari am na um, yoo xam ne ah, moom. moom moom moom fa la la yëf yi wulee ñaay. ñun Belgique lañ dem. Mhm. ñu dem euh, Belgique ñu yóbbu ñu ci benn koñ boo xam ne dañ leen exposé foofu. waa ci ginnaaw vitrine la ñu ne comme boutique. ah mais comme ah. nekkuñu woon benn wala ñaar kenn amul confiance ci sa morom kenn mënu woon dem dañ doon seetaan <laughs> mais nag booy bi ñu fa yóbbu woon moom nañu fii garaawul. ndax am ngeen une heure de temps ñu daa mu ne nañ dem Hollande. ay lay lay ah, bi ñu duggee Hollande moom tarkal euh, Njaay euh, moo tax. Sénégal amna diiné amna ay nit ñu baax. am am nañ am lu ñuy russ té te bu doo ko sax nat ci réew tubaab yi mais natt ko ci réew Afrique bu la yalla dimbalé nga tek sa tank ci yenn réew yi Afrique yi. Mhm. du mëna ñofi gën dé waaye gën ñu di yombul de. Sénégal daraa nga fi de. xam nga réew mi ba ñu <laughs> lan problème am <laughs> <laughs> xalaas non mi parce que man nii ma mel. pourtant yii mën si àdduna bi pourtant de. man lañ doon wax Ndiaye naan ko fexeel Aba mu calme. mais ah. fi ñu toll nii ñun euh, fi ñu toll nii ñun ñoo xool nu la jéemee calme. dañ ma dépassé. ma dépassé nag mais man yaa ma dépassé. dégg nga bàyyi ma noppi ko bàyyi ma noppi léegi. ñu déglu waa ji. waaw acca. damaa amoon benn problème problème boo xam ne ça fait presque huit ans maa ngi woyaale ak moom te aussi sonal na ma te ci solution dem fu ci solution ne ko indi xalaat ba xam na mu bu problème masturbation mooy damay fowee sama bopp loolu nag yàgg na ci man ça fait huit ci man xam naa ne lii baaxul ci man xam naa aussi inconvénient yu ma mën a indil bon naa lu nekk ngir jéem bàyyi mais yàlla xam ne mënuma koo bàyyi passe partout def naa lu nekk wallaay damay mënumaa toog deux jours trois jours yoo xam ne def moo ko day mel ne duma nekk su ko deful day mel ne dañ may poussé na ma def ko jéem naa koo bàyyi def naa lu nekk xam naa ne lii baaxul ci man dem naa ba passe-partout mënatuma julli normal yàlla sedde na damay toog ay weer du ma julli wala su ma jullee tey suba du ma julli ginnaaw suba du ma julli sonal na ma fu nekk dem naa fa mais liñ may laaj laay yorul ndax sama doole demewul noonu bi may njëkk arrivé mu ngi may arrivé en 2017 man de yàlla dafa def dama teel a bàyyi jàng samay parents yóbbu ma ci sama benn dëkk pour ma jàppale sama benn nijaay ci liggéey bi bëgguma tudd nag tur dëkk ma demee foofu yàlla def ma am ku ma fa xam am ku ma léegi dëkk boobu ci laa dem am ay milieu yu ma doon fréquenté na milieu yooyu yàlla ma yàlla baal ci kàddu gi dëkk boobu daal diggante góor ak jigéen daal maa wàllum sëy dafa yomb bëgguma tudd nag tudd dëkk bi ndax ñu koy xam boobu xale laa seize ans léegi bi ma demee yàlla def ma am ku xam maa ngi moom ñuy ànd bu may yóbbu ci milieu yooyu may fréquenté milieu yi tout a temps damay fréquenté milieu léegi mu présenté ma benn xale jigéen ma nekk ak moom di seex ak moom daal comme góor jigéen di seex léegi tout le temps saa su ma damay seex ak moom te boobu xale laa musuma xam loolu tout le temps damay seex ak moom may seex ak moom tout le temps su ma amee su ma amul tout le temps damay seex ak moom léegi may dem di dem di dem di dem ba ak ci dem ba man kooku su ma ko gisul wala su ma ak moom du ma nekk. legi nak yalla dem ma ci dekk bobu ñu naa sama dekk fi ne ni ma ngi Touba Touba la dekk te Touba ku ne xamne ni loolu amu fi man legi tout temps damay tok sama xel di ne ci loolu suma amu suma ko mënta def damay fooyee sama bop damay masiru beewu ba jot sama bop tout temps dama koy def mënumaa tok 3 wala 4 jours te defuma ko su ko defu day melé du ma nek tout temps damay dem ba sobe sobe kassela pour ma sangu set sax problème la tay damay sangu set suba du sangu set damay dem ba du ma mën a julli affaire bi jaaxal na ma traumatisé ma damay toog di jooy te du ma ko wax kenn yàlla seede na du ma ko wax kenn sama famille xamu ko sama papa xamu ko sama yaay xamu ko sama benn xarit boobu rek moo ko xam sama nijaay bi ma nekkaloon foofu sax xamu ko dem naa ba accro ci bu mënatuma wu bàyyi fi mu ne nii solution laa bëgg saafara laa bëgg sonn dimbali te yàlla tax vraiment daal masturbation bi sonal na ma trop sonal na ma yàgg naa ak moom huit ans nii maa ngi ko def huit ans bopp ndax wax dëgg yàlla xam naa ne baaxul ci man dem naa nag ba dama ci accro dem naa ba mënatuma koo bàyyi jaral na ma lu nekk ma bàyyi ko waaye def naa lu nekk mënuma koo bàyyi dem naa ci ay sëriñ muy ñi may ay xaalis de jot naa dajale li ma jotoon yor yëpp ma def jox benn sëriñ waaye awuma ci saafara ñoo xam ne ci internet bi laa leen xamee dem naa fu nekk daal lu ne def naa ko ak ki ma ci mujjee xamante ne nii li may laaj yoruma ko som bu takkoo takko la ma laaj ne ma boo ko amee mën naa la ci dimbali te som boobu man awuma ko ku ma ci mën a dimbale te tax ngir yalla nga dimbale ma ta yalla tax ndax sonu na trop 8 ans ni jurom ñetti at ta xalé la warna tak soxna amna naa vingt ans ci ren warna tak soxna warna am jabo ku ma ci mën a ngir yalla da dimbale ma ta yalla tax xalaas man nak yakarna ne fofu mu daanele waaw ah. bu munta solutionner problème bi yëpp du ñàkk mu am lu ci mëna a solutionner mooy mu tak soxna. toog waaw takk soxna après bi fer parce que bu fekkente ne yow dafa am lo lo lo loo tàmm. Mm. ñëw fi nga ñëw mënatoo koo am ba tax nga koy lijjantee neneen. Mm-hmm. moi je pense que li gën moy nga tak soxna. déjà mbalu dafa araam non bu bu munta rek day go góor. <coughs> comprendre loo dara. Mm. tak soxna wàññiwul ay vis de vis ah mais non dindiwu ko mais dina ko wàññi. dina dina dina am ci lu mu téye. dina am ci parce que déjà problème bi mooy. temps wu di ko def sax nga dul amati. te yàlla may ko may ko jabar boo xam ne dafa bëri bagage jabar bu mel ne ceeb bu weex. waaw ah, jabar xam nga da nga am jabar boo xam ne day mel ne ceeb bu weex day am suul am bëggëj am soosu kaani am limon am daqaar <laughs> xooñ ñu ah, waaw waaw am moo ko soo amee jabar bu mel noonu nga xam ne boo ci añee ba suur moom da ngay xalaat tëdd nelaw rek tëdd nelaw rek ah, yàlla yàlla yor may jabar jabaru ceeb bu waaw am saa mu mu si mu sipitu léegi contraire ba mooy lan bu contraire ceeb bu weex ay ah ceebu kecax yi nga xam ne. <laughs> dara amu ci. xam ne amul dara am na yu mel noonu. la ceeb bu am na jigéen ñoo xam ne lan mooy lan mooy jabaru yaasa. Ah, waaw loolu du yaasa di sombi. <laughs> jabaru sombi. afu daara. <laughs> ay la del sànni ci meew rek bàyyi noonu. mais leneen affaire lu jara bàyyi xel. am na ku ma ko doon wax démb nee na ma. il faut que jeunes yi di bàyyi luñ gis dugg ci. parce que dina foo xam boo fa xasee bu dugg. Hmm. pour nga génn ci problème la. lay dëgg la. Diagne xam nga am na ci xale yu jigéen ñi ñoo xamante ne boo xasee séq ak ñoom ba pare dootoo leen bàyyeete. Hmm. baa boo leen bàyyee bu la yàlla suturaal ba nga jógee d'un pays à dootoo bàyyi jigéen. Hmm. ndax la. ak ah, lu ñuy def la. waaw ah, daa am na xam ne ay ay militaires lañu. la non non non non dafa am lu bon ah dañu lu nekk ci si. subhanallah c'est mystique. am na yu bon am na yu bon ah. yoo xam ni ñoo xam ni boo xasee ba xamante ak ñoom dootoo bàyyi loolu. daal jour dañuy def la ci ñoom. loolu la yooyu baax yooyu wóor yooyu wóor. ci c'est comme am na fi ay jigéen yoo xamante ne ji surtout ci yenn zone yi boo seexee ñoom. Hmm. ñiy tukki bàyyi fi seen jabar ñoo koy def. dëgg la boo dof loo ba seytaane mën la wala nga bon ba seex ñoom. Hmm. fa ngay pare dootu mën a dara. moo tax di day moytu gis nga bëgg bëgg lekk warut tax lu jug. nga ñam am na ñoo xam ne yow jaañ ba seex ak ñoom loolu liggéey indil leen. ah wallaahi. dañuy def sax dina continuer waa mais loo liggéey indi leen loo liggéey indi leen jaañ foo amati sa waa kër benn njëriñ ñu naan lim nekkee nii fekk tay ko. yooyu def compétition ba ban compétition la. mais nag jaañ. waaw ni mu amee ci góor noonu amee jigéen. yaa ah, am na góor yu bandi. am na bu du banditisme lu bon la. lu bon la ñuy def la am na góor ñoo xamante ne jii tey da gis jigéen topp leen ñu naan lu mu ko toppee. mënu ko dara joxu ko dara da koy tardel mais problème bi mooy du doon sax mbëggeel dafa am leneen lu ci nekk yeneen yeneen mbir merci beaucoup ne boo leen laajee loo toppee kii loo ànd kii mënuñu la ko wax de ñu la ko wax day na que dañu la jekku rek <coughs> beneen bi sopp waaw ah xam nga démb nañ fi benn waay mooy waa jooju nekkoon ami Saliou waaw waaw borom cent million yi mi ngi noonu waaw mooy kii doon sàcc oro malien bi te nga xam bi muy yegg di dem ci yoon Nicaragua bi la jaar oto jàmbur la jaar ba ah, dem foofa ñu jël ko pour muy liggéey ci benn mm. magasin mu nekk ci mm. or yi c'est moi qui ai Google à New York. 80 de mes clients c'est les Sénégalaises. Donc tout le monde me connaît pratiquement. Moi, j'ai pris Salim Durof, Il est venu me demander. C'est un de mes employés qui m'a dit, Salim, cherche du travail. Il a trouvé dehors, il l'a amené chez moi. Moi, je l'ai pris comme un frère. J'ai ouvert ma boutique et puis j'ai mis un Salim dedans. Il dormait là-bas. Donc moi, je pars à Dubaï, je vends l'or. Quand j'amène l'or, chaque fois, il y a une perte, il y a une perte, il y a une perte. Moi, je me suis dit que c'était les clients. Quand ils vendent comme ça, là, tu dis chaque fois, les clients savent que y a une perte, les clients vont courir. Donc moi, je me suis dit, je me suis tellement dedans. Mais ça augmente chaque fois, ça augmente. J'ai Caméra ici, comme je suis tellement en believe in God, je crois en Dieu, moi je laissais comme ça. Donc, moi, cette fois-ci là, c'était trop. Moi, j'ai dit, je vais regarder Caméra. Donc j'ai regardé caméra pendant une semaine, j'ai regardé petit à petit, petit à petit, jusqu'à le jeudi matin, vers Fadji, je vois que c'est Salim qui faisait ça chez moi, la main dans mon sac. Moi, j'étais malade, tellement je tremblais. Le matin, je n'ai rien dit. J'ai appelé des fois Fatou dit, envoyé des vidéos. Donc, euh, quand je suis arrivé, on a appelé la police. Donc, quand il avait police seulement, il s'est couru. Il, a couru. Dès lors, il est dehors il, était venu ici. Ce qui m'a choqué même, il est venu, moi je lui faisais confiance, il a dit que sa, femme et la copine de sa femme ont de l'argent à Dakar. Il veut des ensembles, les petits ensembles que je vendais. Donc moi je lui ai donné une valeur de 6 000, 6 000, et une valeur de 12 000, 12 000. Il a pris, ça fait 24 000 dollars. Les 24 000 dollars maintenant, il m'a dit, ok, ils ont 2 400 000 là-bas on va te donner là-bas. Donc je crois que c'était sa femme, que sa femme c'est une sage-femme. Donc moi je lui ai donné mon bijou de ça aussi dans ma main, comme les autres achètent. Il m'a dit chaque semaine, ils vont m'envoyer 400 000. Sa femme et la copine de sa femme. Donc c'est ça que Salim m'a fait. Il m'a donné 2 millions 400. Comme il sait qu'il y a problème, il est couru parti déposer 1 million aussi chez ma belle-sœur là-bas, chez elle aussi dans tous ces problèmes-là, c'est qu'il fallait, Salim a pris avec moi, ça vaut 200 000 dollars. Pendant huit mois, pendant huit mois, Salim est en train de voler chez moi. Cette fois-ci, le coût de cette fois-ci, plus ce qu'il a, je l'ai donné, c'est plus de 60 000 dollars. Ce qu'il a pris avec moi, sur mon voyage-là. Presque chaque deux mois, quand moi je ne parle pas, ma fille pas? Chaque deux mois, moi je parle à Dubaï pour amener de l'or. 5 kilos, 6 kilos, 7 kilos, 8 kilos c'était petit, j'allais connaître. Mais quand, comme j'avais une quantité là, donc c'est ça qu'il m'a eu. Il prenait. Mais quand il prenait, il a commencé, il prenait avant, mais il a commencé à prendre chaîne et laisser beaucoup de lait, ou bien prendre beaucoup de lait. Donc je suis automatiquement que quelqu'un est en train de voler chez moi. j'espère que li mu expliqué noonu comprendre nañ ko daanaka mooy li ñu fi waxoon démb rek mhm. nee na coût bu mujj bi soixante mille dollars la ko jëlal léegi nag mu nee na dégg nga nee na li somme bi bari sax moo ko xaw a tax mais hmm. bu doon lu tuuti sax dana bàyyi mu jàll hmm. hmm. saale léegi daw na ah daw na daw na kay te passe partout nee na ma euh, déggante na ak Saliou ah, ah, ah. mais nee na non seulement dafa daw ba pare day wax ne femmes yi dañ ko bëggoon a iri <coughs> danañu tuma waaw Ah. ba noppi di siiwal seen ay photo ne ñoom ñoo ñooy ñu juba di ñi daan cooy Saliou Saliou daa xam naa ne ku lëj la de. ma ku lëj la kay. Saliou lëj na de. wuyu ma nun dem gaaw. waa bii moom benn waay la boo xamante ne ji daanaka. Hmm. lii yow sax la bëgg nga gën cee wax. man mi jañ waaw. muy koñ ba ñu dëkk. waaw bu fa làmb amee. bu làmb ji commencé ak bu jeexee ci fitna la ñu nekk keroog nag dañ fa agressé benn chinois. déglul. làmb su amee ñun duñu am jàmm booy dañuy romb di agressé di jaay doole tellement ah ay booy yu bari doo xam fu ñu jógee booy Grand Dakar booy Fass tey jii nii boo gisee li fi xew booy xam fu ñu jóge ñuy romb xoola agressé foofu noonu yëpp am benn chinois chinois yoo xam dañ doon romb dañ ko ñoon chinois boo gisee ñu ko def ñu ko tëral li mu yoroon yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp la ñu fekk lañ tëral ko ci suuf chinois yi sunu ay partenaire la Fass bari bëri étranger dafa bëri étranger yi ñu romb terroriser nit ñi complètement ay boo yu ndaw la ndax làmb mais romb xoolal jaxase foofu noonu yëpp yëpp yëpp complètement laa lay wax complètement boo yi bëri nañ benn bëri boo xamante ni doo sax boobu daal war ngeen ci dimbali waaw Simon yi moom sonal nañu sonal nañu carrément carrément du leen ci mën a dimbali euh, gouvernement bi nañ si jot franchement war na def enquête ci lii jàpp jàpp leen koo ci denc benn un an deux ans ah bu génnee dana xool leneen nu muy def parce que ay booy ndaw ndaw ndaw lan ay moins de vingt ans booy ñu ngi def ni ñu ko fenn romb simol ay bagage yu jàmbur nga jël lu neex portable magasin nga jël lu neex dem sa yoon tey ji sànq bi ma toogee étranger lu ñu waxul amul lu ñu waxul amul affaire yi daal franchement depuis des années muy continuer muy continuer te booy yi ñu yor ay jàpp mën na la rey dem seen dem seen xalaas te booy duñ ci làmb ji dara duñu mbër duñu promoteur yokkuñu làmb duñu sponsor duñu dara dañu yàq làmb bu ñu yeggee stade sax duñ dugg ay genre supporter lañ yoo xam ne làmb taxu leen ci arène ba sax duñ dugg mais nañ mais seen yooyu na yem ci seen biir ñu génn ci chinois yi Ndiaye fekke naa centenaire loo xam ni groupe booy loo xam ni booy bu ñu tegee ci loolu seen bët nañ def ndànk ci chinois yi agressel sa mbokk sénégalais agressel sa nawle mais chinois bu ko agressé booy yi maas lañ def ful di agressé chinois bi jaay seen bopp chinois bi naan mu ngi nii koñ bi lay génnee bu génnee yaay daw jël ko boo laalee sac bi ah, jël ko sànni ko sa waay sa waay bu ko jëlee ñu dem daxaje ci ko parce que xam nañ ko nii rek parce que ko ñi booy bi ñu yónni woon pour gën a kii booy bi ñu yónni pour laal chinois bi da ko l'a rek récupérer sac bi sànni ko boy boy bi daw un ko keneen ñu wiri ñu dajé ci troisième koñ bi Boy bi bim laalé laalee bi kàcc dafa sigi yem ci yeen boy boy, comprendre ñu ne comprendre moo ni boy yox la yox la ñu ne ko mu ne non sama loxo la dam <laughs> yox la yox la Vision Plus Sénégal borom lunette partout et pour tous référence